Baara Gaye dafa ñëw ci demande directeur bi waroon na karole ñetti salle classe euh, tàmbali ko ñu indi équipe bu ko tàmbali. Euh, biñ paree tamit biñ wanee jëf jooju population bi dañ cee roy bañ ko gisee véritablement ba amical anciens yi fi nekkoon ñëw commencé ba yeggal ba yegg ci fukki classe yu ñu euh, dolli ci karo mu des ñett Baara continuer waat ko ba pare mu xamal ñu ne na école bi rafet. na école bi mel na mu war a mel wuyoo turu turandoom ki ñu ko tuddee Serigne Mame Mor Diarra Mbacké ah, tax na mu peinture école bi si biir ak si defaraat plafond yi defaraat douche yi fukki euh, cabine euh, indiwaat ndox mi ci biir école bi defaraat fosse bi defaraat euh, plafond yi ak ardoise yi tudde nag salle bu ci nekk nit ku baax ku fi mës a jaar sargale ko ba fukki salle ak juróom-ñaar donc loolu bokk na ci tamit euh, li mu def jàppale bu baax a baax xelay ci département bi euh, commune Mbacké également particulièrement ci fukki junniy kaye yu cent page euh, defal jàngalekat yi tamit lu am solo jox leen ay togg yu baax ay chaise de qualité ak frigo boo xamante ni nañ ci mën di naan ak tamit jàppale leen ci matériel de nettoiement offrir tamit école yi ci dëkk bi ak service yi drapeau nationale du Sénégal ak sonorisation boo xamante ne aussi mi ngi fi école bi pour école bi di ko jëfandikoo donc loolu yëpp su amee euh, ñi ngi ciy sant amicale bi di sant Baara di donc wax ne Mbacké euh, waa Mbacké ñoo koy defar nañ ci jàpp ñun ñëpp école bu si nekk am na fu mu gox bu mu ne waa gox boobu buñ sa jàppee kon dina am développement inclusif de l'école à Mbacké. fait que ñu réhabilité waat école bi rek. ñu ko defee rek élèves yi yëpp lañ ko defaral te ku élèves yi jigéen ñi am nañ ci góor am nañ ci kon jàpp naa ne la fait que ñu defar douche yi douche yi vraiment réhabilité réhabi defaraat nañ ko ba nga xam ne nii dina mën a am benn bloc boo xam ne nii pour góor ñi la ak beneen bloc boo xam ne nii pour jigéen ñi la kon yaakaar naa loolu am na solo. xam nga dañoo defal lu rëy ci suñu école parce que suñu école dafa amoon nu meloon démb dafa rappoon ñoom ñu ñëw fexe ba defar ko mu rafet lool yaaññi lool neex dugg lool neex a jàngee lool. incha allah ñu ngi dugg ci classe yi ñu ngi sensibiliser élèves yi tàmbali nañ am nañ mat matériel boo xam ne nii danañ fexe ba incha allah sàmm ko ba benn euh, yàqu-yàqu du fi am incha allah loolu daal suñ jite la. def bi tey dama koy rafetlu bu baax pour dire que tey ñëw naa mais am naa mbégte ci li ma gis fii ci Mame Mor Diarra nga xam ni mooy premier école de la commune am na ñu ci jotoon a def comme monsieur le maire jotoon na fi def liggéey am solo waaye comme am na yoo xam ne war nañ ko mën a yeesalaat am na yoo xam ne war nañ ko donc fii ma gis amical bi nga xam ne mooy ancien élève yi Mame ak monsieur Bara Gaye nga xam ne opérateur économique la ñu boole seen doole pour mën a dugal seen loxo bu baax ba école bi mën a am xar kanam bu rafet te loolu wax naa léegi que loolu dama koy rafetlu maanaam lu ñuy faral di gis mooy kenn mooy ñëw rek jël dooleem defar su paree xëy na ñu ñu ñu ñu woy ay mbiram kontaan mais fii day wane nit ñi dañoo travailler de façon désintéressée lu koy wone mooy dañoo boole seen doole lu ñu tax a jóg mooy nañ fexe ba école bi baax donc ni ñu seet kii lu mu ci def wala kii mu def mais ku nekk lu mu am na ko dugal donc loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne bu ñu ko ne di ko def mën nañu wër école Mbàkke yëpp mën leen a defaraat mais lii ma gis nii qualité bi rafet na maanaam peinture beeg carrelage bi reprise toilette yi tout foo ko gis xoolee xam ni travail mucc ayib la def nañ ci yéene te macha allah. yàlla aussi fay na leen parce que li ñu visité moom rafetlu nañ ko trop trop maanaam soo bëggee tey njàng baax il faut que fu ñuy jàngee baax tamit li ñuy waxee qualité enseignement ak infrastructure fekk infrastructure dafa délabré dara baaxu ci loolu rek day nekk source de démotivation pour élèves pour jàngalekat mais soo ñëwee mu nekk un cadre attrayant defar nañ ko moom baax loolu day tax élèves sax sawar jàng jàngalekat buy jàngale day sawar sax ñëw classe jàngale te loolu la école sénégalaise mérité te dañoo toll foo xam ni war nañ def le tout pour que école yi nga xam ne dañoo vétuste wala école yi nga xam nekkuñu aux normes yooyu ñu mën ko changer ba nga xam ni ku fa dugg da nga xam ne fii école la souvent dañ koy wax ni forme de misérabilisme dafa war a jeex maanaam foo dugg nga xam ni c'est un climat austère da nga naan fii est-ce que école wala lan la mbaa nga xool bâtiment bu gën a màggat ñu ni fii école la ñu ni du ñu bett parce que école yeyoo na ko loolu gis-gis boobu dafa war a jeex. dañoo war a def de sorte que fu ñu ni fii école la ñu xam ni fii béréb bu ñu war a nawee la mais loolu du état rek moo ko war a def mais collectivité locale war nañ ci dugal seen loxo population yi war nañ ci dugal seen loxo parce que ku nekk war nga xam ni soo investir ci xale du investissement boo xam da nga koy perte pour dire que kenn warul taxaw tey di wax école jarul sonn ku koy def yaa ngi réer wala yaa ngi nax sa bopp. mel na tey baarage nga xam ne moom dañ koy beral sant parce que deful lii rek moom dafa yàgg intervenir ci wàllu école. nga xam ni dina joxe ay cahier daaw rek ba xale yi def examen da cee dugal loxo bu baax élèves yoo xam ñoo ngi doon jóge Touba di ñëw nekk ci ay mu indi restauration ba pare def ko en toute discrétion di si loolu aussi ay ay valeur la yoo xam ne ñoo ngi koy jàngal xale yi tamit mooy forme d'altruisme boobu forme de générosité boobu pour dire que nu ñuy poser yi en même temps dañ ciy génne ay leçons pour que xale yi mën ci inspiré wu xam ne adduna tamit lii la soo amee moyen nga mën a dimbale ñeneen ñu mën a ñoom it jug donc pour dire que c'est extrêmement important au-delà de l'aspect matériel nga xool léegi loo ci mën a génnee comme leçon de morale comme exemplarité nga xam ne ñii tey ñu ne amicale des anciens lañ wala baaragay ñu ne école kat yàggoon na sonn ci ñun donc war nañ ko delloo njukkal muy nekk forme de reconnaissance ou bien de redevabilité loolu dafa am solo ci doomu aadama fu may daanelee foofu mooy le terme ñu del pour chaque classe tuddee ko kenn loolu lu am solo la parce que tuddee ñu c'est des enseignants c'est des opérateurs économiques ñoo xam ne daal sooy xool seen parcours dafa nekk un parcours exemplaire donc loolu aussi dana tax élèves yi suñuy jàng ñu mën a inspiré wu ci ñooñu loolu na leen directeur bi su yàlla defee incha allah ngeen di tàmbali mën ngeen di sax planifier ay leçons de vie pour chaque parrain wala benn marraine ngeen consacré ko benn journée revenir ci lu mu doon def revenir ci nu mu dundee revenir ci valeurs yi élèves mën cee jàng bu ko defee suñu conjuguer valeurs yooyu yëpp nag daañu mujj am élèves yoo xam ni ay royukaay lañ nekk aussi